waaye sénégalais ñoo ko war gis ngeen ñépp dañu dem bindu ji ci liste électorale yi nañu am niveau d'inscription boo xam ne kenn mësu ko gis Sénégal premier signal la ku fa dem ñu andi seen waxut tappale yooyu naan la est-ce que da ngaa bëgg a nekk ci fichier électoral am déet nee ko sa yoon new ci bind ma parce que ab citoyen dañ ne le droit de vote le droit de vote doo laaj nit ki ndax sa droit da koo bëgg wala déet nit mun na ne élection présidentielle bi intéressé wu waaye législative mu intéressé ko pourquoi ñuy dugal yooyu ay dañuy laaj question ça doit automatique mais comme ñi ngi bëgg a def affaire tàppale na ñëpp dem bindu bindu ci carte d'identité bi bindu ci fichier électoral bi dem récupérer seen carte gannaaw loolu liggéey bi opposition di def ci cadre coalition Manko ma leeral fii ni Manko ñu bëri jàpp nañu quelle coalition électorale du coalition électorale li ñu seq li ñu booleek ñenn ñi mooy dem nañ ba gis ni kii fi toog dictateur la te dafa bëgg a napp nit ñi te suñu beroo ku nekk toog sa coin tey mu song kii suba mu song kële boo moytul du baax ñu ne nañu dajale suñuy doole ngir xeex dictature boobu mais su loolu weesoo nag kenn ku ne yaay xool nooy demee sa élection loolu mooy manko te may naa leen 15 heures ba 18 heures waa lan mooy ndeyu ñi ñi ñëw di def marche ci diggante boobu 16h30 nga sànni lacrymogène naka lañu ñu mën a tuddee loolu lu dul panique parce que jàppoon nañ ni opposition amatul Sénégal mënuñoo mobiliser waaye bi ñu toogee ba 3 h demi gis ay milliers de Sénégalais génn ñu leen di woo di leen ñu commencé paniquer ñu gis ni chaque minute foule bi di gën a ñëw. te ñoo ngi fàttali Sénégalais yi manifesté nañu Mbacké manifesté nañu Kolda manifesté nañu Kaolack New York Paris Milan ci loo xam ne ñun ñii yor mbir mi sax jotuñu woon cordon ak ñoom panique jàpp leen ñu ne tas seen mbir ma balaa ñuy wax seen message loolu moo fa am leneen amu fa nee nañu nag nit ñee doon forcé wala ni ak moom waaye dañ leen dénk suñu réew 13 million de sénégalais ñoo fi nekk te réew nag même 13 millions yu sénégal yi fi ne moomuñu ko dañuy romb rek waaye suñuy doom ak suñuy sët war nañ fee fekk Sénégal gu baax ñoom ñu ñëw ne gestion sobre et vertueuse mooy yorin gu sell tal tal leer nañ amul lu ñuy nëbb waaw loolu kay soo ñëwee ñu ne la ah problème am na xanaa kay ñun moom la ñuy dimbale ñu xëy ne assemblée nationale reversé wul impôt te ñoo waroon njëkk a versé ndax ñoom ñooy wote loi yi yi tax ñu ñu fay impôt ñun ñëpp daal di dagg impôt bi toog ci Franklin nga mer ñu xëy ne pétrole bi léeg léeg li am na ci nga mer ñu xëy ne loi de finance bii nga wote rectificative ay marché à gré gré yu dul yoon am na ci budget budget bu référendum bi dem na ba 10 milliards te yaa waxoon 3 milliards nangam na nga mer naan damay rajeeg damay léeg damay lii donc ñun liñ leen di woo mooy nañu delloo si seen xel nguur day jeex président nekkoon na fi président nekkaat fi président nekkaat fi te moom day dem te ngi ñaan mu gaaw donc à partir de ce moment liñ la dénk fexeel ba yor ko ci anam gu rafet boo tëddee nelaw dangay dem yeneen réew nit dina yor réew ba jóge fa nekkaat ci réew mi ak njabootam di fa yor ay activité am te coow du am dangay gis ay ñoom Clinton ak ñoom nangam nangam ah, donc Sénégal il faut que nit ñi xam ni moomuñu dañ leen dénk kese ku fi soxla ñëw di yelwaan suñ la joxee nag nga ñëw ku wax nga funki di yooxu di dal di naan damay kase damay lii nit bu yàlla sàkk nit bu yaakaar ni mun na ko kase day nax boppam. waaw non dama ne la ci fan yi di ñëw comme dama bokk ci ay kuréel am na yu ñuy liggéey yu am solo lu mel ni lu dem ci zircon bi lu mel nii euh, lu jëm ci. Euh, phosphate bi lu mel ni yenn service su réew mi service su réew mi yii ay agence yii ay autorité yii ci administration la niñ leen yoree ci yoreen gu sell di te muy yàqal Sénégal alal gu dul jeex xaalis di fa dugg te demul fi mu war a dem yooyu yëpp nañ ko dajale waxtaan ceeg Sénégalais yi parce que li ñu def ci pétrole bi ndam la ci ñun ndax tey man gëm naa ni leneen lu ñuy defati ci pétrole bi dinañ gëstu gauche gëstu droite balaa ñu koy def ndax yaakaar yaakaaroon ni benn sénégalais xamul lu xew ci pétrole ba tax ñu dem tëju seeni i bureau climatisé di signé donc il faut que comme amuñu assemblée nationale ci réew mi chambre d'applaudissement et et d'insulteurs professionnels lañ fi am il faut que mu am opposition bu am doole am fulla teg li muy wax ci xam-xam daa di leeral sénégalais li fi am ndax su ñu amoon assemblée nationale question yëpp ñu posé war nañu am commission d'enquête parlementaire te doo ko fi mës a dégg. donc loolu mooy euh, ñun suñu façon defin politique ñu wax sénégalais yi nii amuñu problème ak kenn.